Waalaikumsalam warahmatullah. Enda baye ci waye ci jamm wax. Tour bi mbay la. Ma ngi dëkk Ndakaaru. Ma ngi jaay ay seen ak jaaro. Wa di bëggee képp kuy ambilaman. Di bëggee njiitu réew mi Jumaay Fay. Njaay waaw ñu ci yëngu par nank rek xam nga. Di wax si gaay rek pour euh na leen ambilaman sonn nañ. Bëgg nañ ko xam nga dëkk bi tamit aussi dëgër na mooy loolu quoi mais daal ah mais daal ñu ngi mais daal ñu ngi góorgóorlu daal ñu ngi góorgóorlu mais daal su ma soñoon daal gars yi teg ñu loxo Amina Amady sonn nañ ñu si liggéey nag di góorgóorlu tere suñu ñaari waajur di dimbale képp ki nga xam ne maanaam war nañ dimbale mooy loolu quoi mais daal nañ jàppale gars yi daal sonn nañ sonn nañ euh, ren la deux ans maa ngi ñëw Tivaouane di góor góorgóorlu waaw xam nga. waaw ren daaw moom lañ gën a xam daal mais ren xam nga kiiwagul mais ñu ngi soqee ko par ndànk waaw yàlla baax na waaw. place yi dañ la koy jaay mais bagage dafa seer quoi dafa seer mais si suma soñoon tamit jàppalante bi maanaam mu gën a kii quoi mu gën a fës quoi xam nga ñun moom mooy loolu ay fakir lañ yoruñ ma ni jàppalante rek xam nga mooy loolu. di wax sama mbokk client ma ngi nuyu kep ku nek fi nga tok ma lay nuyu jël la ziar waaw di la ñaanal jàmm yag ci ñom ginaa yàlla tay sama taxawé fi ni di wax ñu si bari ñom la su amé sama bagage ñom la ko ñëk yéré ndax ñom la ñëk xam ñoom ma yàlla booleel ngi nuyu di leen ziar man may ñing waaw dekk vez si Ndakaaru doomi parcelle ngi di ziar waaw di nuyu nag asalaamaaleykum waa Sénégal maa leen di nuyu di leen ziar di nuyu wa aduna ñepp maa tuddu tudd Aram Ba waaw man kat dama ñewon fi sax ane mom fi lay fi lay fi lay gàmmoo wax deug yalla ci Tiwaawan ji fi lay gàmmoo mom waaw mais suma ñewé suma ñewé mom dekk rek lay jaay jafé jafé manam bo ñewé duñ la jaay place mom ñun fi ñuy jaay mom duñu jaay place mais dem duñu may ñu ñu lal dañuy lal ci kanam tuddi jeunes ñew dindi ñu lal li ñu lu mar une semaine maa fi nak lu mat 150 000 fere naa ko si ay bagages mais mënu ma fexe ba jaay fu ne nii dama bëgg sax bu ñu ma mayoon sax paas ma ñibbi ndax fu ne nii man sonn naa te sama tension mi ngi yëngu vraiment sonn na ñun jaaykat yëpp dañoo sonn vraiment loolu moom ba dëgg yaa bu ñu ko mënoon jënd si Tiwaawan di moom dinañu gënal lool nag xam naa ne nag sëñ bi nag ba bëggeewu ko nii moom sëñ bi nag moom ba sañoon ñëpp ay euh, li nga bëgg di nga ko boo ñëwee am ko fii mais nag bëggewu ko nii mais nag xam naa ne daal niñ ko niñ ko doxalee nii moom ah métti na de. non non jaay ñu moom ñun moom jaay ñu ñu wax dëgg yàlla te wax nag yàgg nañu fee nag eh, liggéey waaye ñun moom dañoo tàmbati waan ba nga xam ne ñun su événement bi amee sax suñu doom yi dañ naan yaay bul dem ndax da ngay sonn ma ne garaawul man tàmm naa ko ba noppi ba ma ba ma fii ñëw sama doom boobu parental la ay 2 ans la am mais léegi am na 17 ans kon nga xam ne yàgg naa fii ñëw waaye boobu ba léegi daal dañuy soon mais ñun suñu yaram bi daal xaw ma lan la heure bu gàmmu jotee dañuy naan daal xaa ñu dem Tiwaawan ndax tàmm nañ ko daal. ndax kilifa yëg nañ ko. kilifa yi dama yaakaar yëguñu lii daal dama yaakaar yëguñu parce que ñun sonn nañ vraiment lii du ay caaxaan du ay fóode li may wax nii vraiment dañoo sonn xam nga ku financé cent cinquante mille mënatoo mënoo sax gis dix mille francs ci ñàkk jaay xam nga ne loolu metti na lool vraiment te ay njaboot ñu ngi bàyyi suñuy lal yu nooy nag suñuy suñuy duubu lii lu baax la ñu bàyyi nag ak suñuy ventilo mi ngi nii bu ñu ñëwee bi dañuy futi kenn du xam lu ñuy nuróol te vraiment bu ñu toogoo suñuy kër am waaye ñun yàlla moo ñu xaw ma suñu yaram daal moo moo bëgg Tiwaawan ñun ñoo bëgg Tiwaawan waaw ñu ñu ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp waaw di ñaanal ñëpp jàmm nag yàlla na réew mi am jàmm nag maa ngi. bu taal bi maa ngi kenn ku nekk seen tur ak seen sant Aliou Aliou man maa ngi commerçant di jaay ay yére. bañ jafe-jafe ñun daal bi mu fi ñëwee parce que mi ngi mat man na une semaine daal mais mënu mënuñu mënuñu ñoo fexe ba lal fu ñu lal nag ñu yëkkatuñu quoi voilà sonn booy bëgg a dee nag sonn nañ tubaranke nañ fii macha allah. daal li ko waral mooy fee daal am na espace gars yi nee na miir bi dañ koy tere te joxuñu fu ñuy lal moo loolu dañuy fu ñu lal ñu fu ñu lal daal ñu ñu yëkkatuñu. Wala, ñu sonu boy bëgg dee tuburange daal ta te réew mi mom réew mi day né réew mi dañu bëgg mu développer waye mais li taxu réew mi développer na bu sañon mom senes bi yëpp am liggé wala motax motax goné di jël mbëkk mi ni dé ci géej gi loolu man parce que léegi mat une semaine dal ma ngi ci tiwaawon wa boba légui nak ma ngi bëgg place mënu ma fexe ba am place fu ñu ñu yëkkati ñu loolu jaadul non gendarme yi ñoo ñu yëkkati fu ñu laal ñu yëkkati ñu duñu jox feneen voilà mii noonu nag te ñun ay ndaw lañ ay seen ay ndaw lañ ay sën lañ bëgg nañoo liggéey quoi saa ci ñu defuñu lu lu lu diine bëggul daal ñu ngi yéene daan suñu doole mais mënoo ñoo bàyyi ñu lal quoi diggante bu gàtt la 3 jours 2 jours mu jeex voilà kenn ku ne am li ngay am mais duñ ko def dañuy xatal dañu bund xataal sonn nañ daal vraiment ñu commerçant yi. man maa ngi bàyyi ko fii ba Touba sonn naa ba bëgg a voilà une a ngi nii maa ngi tubaranke si àll bi. place yi place da ngay ñëw jënd sax da ngay ñëw jënd sax mais du tee dañ lay yëkkati. 15 000 am ñoo xam 15 000 la am ñoo xam 40 000 ba 20 000 25 000 voilà te bii sa dund si lay bokk nag mi ngi noonu métti na daal suñu mënoon a jàppale ñu jël daal voilà ok jërëjëf waaleykum salaam. oui man Baydi Sow ma woowee. dëgg géej waay. ñu ne ay kurus la ñuy jaay. man euh, démb démb si guddi laa de. Mhm. Njaay ma waa gars neen sokkee ko gunja mais am nañ ci yaakaar incha allah. waaw ki naa ñuy ñëw nànk-nànk waaw. Mhm. waaw kurus moom sans départ amul prix quoi. Mhm. waaw lu waay am moom kurus moom suñuy suñuy mbir méttiwul quoi. Baxlin am na Jalambaan am na Yusuru am na loo bëgg rek daa am kuréel incha allah. Hmm? waaw ñun moom Baxlin la ñuy gën a jaay quoi Baxlin mooy mooy bant bii nii ma la woon léegi léegi. Hmm. moom mooy moom la ñuy gën a jaay fu mu ne nii waaw. waaw moom xanaa dëgg ba xaw a dëgg tuuti rek mais sant yàlla bu baax yi moom nekk ci rek boo ci nekkee rek incha allah dina baax. ak conditions yi ngeen nekkee moom xaw na métti tuuti quoi waaw fii moom boo ñëwee moom dina xaw a tuuti mais métti moom mooy loolu métti moom rayul góor quoi. non gars yi nice fu ne nii moom gars yu ma laaj ñeen nice quoi lépp jàmm. waaw client yi moom xanaa ñu ñu wàññi waxaale bi day jënd rek xam nga yi moom dañuy ñëw waxaale duñu jënd quoi buñ soxla dañuy waxaale jënd affaire yi moo yaa am gën a xam Moussa Wane Ba Wane merci salaamaaleykum man maa ngi tudd Mohamed sen tissu laa jaay ay tisi tissu ñun kay danoo ñëw fii jënd fi place ba pare police yi laal ñu ñoo ngi nii gis nga booy nelaw rek lan fi nekkee jaay ñu defuñ dara di xëy di jënd ndéki añ reer mënoo jaay gars yi di la romb ak boole nii doo jaay doo am lekk waaw dafa xaw a métti tamit quoi depuis dem ba léegi. place bi jënd nañ place ten taw dix mille foofu nga taxaw ba fee yëpp ñoo ko moom yëpp ñoo ko moom mais mënu ñoo lal bu ñu lalee police yi yëkkati ñu ah nee naan suba rek lan mën a lal suba ci guddi jouru magal si guddi ngay lal looy jaay paas seize mille ñëw fay dix mille ñaata demagun na Dakar lañ jógee Pikine non ñun moom waa ji encaissé nañu ba dem waxuñ dara waa gars yi ñoo ngi nii firanteer nelaw rek xool saako yi saagi sonn nan quoi ku ñu dimbale leen bëgg bilaay wallaay affaire yi na trop parce que seet naa Ousmane Sonko métti na lool. dégguma kooku foo koy gisee kooku seena bu yàgg ñëw na ne place dañ koy dagg ñu fay gisatuñ ko non métti na bilaay métti na mais sant yàlla rek sant yàlla. ah non man rek laa gaamu siwul nag daaw rek laa gaamu siwul ah daaw rek donc daaw ñëwuma daaw ñëwuma ziar général bi lañ ñëwoon mais ziar général bi neexoon na waaye waaw ren moom gisagun dara de yàlla baax na nag gisagun dara de ah dañuy met na lool barki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. leen siyaar leen sant Assane Seck man lay jaay waaw ay poset rek benn dég yooyu noonu ak ay bëtëre non non ren laa door a waaw ah mi ngi dox rek waaw ah oh. góorgóorlu rek waaw No, dama ko jënd non ça dépend rek waaw. mais ba amul benn jafe-jafe par rapport ak Ndiaye. non wax dëgg yàlla amul benn jafe-jafe moom waaw. ah ñu góorgóorlu bu baax a baax rek waaw. Ndiaye ah ndànk-ndànk rek waaw. waaw ñu ngi ñëw ndànk-ndànk wax dëgg yàlla sant yàlla bu baax. non maanaam ren la première fois waaw waaw. non wax dëgg yàlla amul benn jafe-jafe moom. ah ñu góorgóorlu rek. salaamaaleykum. tur bi Ami na man Touba jóge. man alxames ba tey. maa ngi fi. sant yàlla bu baax. Mhm. waaw waaye bu doolee tam ñu jël. client yaa ngi ñëw nag waaye taxul ñu xaw a bari noonu. waaye xam naa gàmmu gi ñëwagul. naa dinañ ñëw. waaw ñu ñaan yàlla jaay mu jeex ak jàmm ñibbi si jàmm. man ay fer ay sër ak ay yëfi xale yi ak suusi xale yi ak njara yi lépp daal la ñuy jaay du xale yi jëfandikoo rek lu baax ñu ngi koy jaay. ndax client yaa ngi ñëw. Ah, uh-huh. waaw ñu ngi ñëw ndànk-ndànk. waaw ñu ngi ñëw ndànk-ndànk. yaay booy ba moo gën a si sa wàllum jaay. Ah, waa xam nga gàmmo gi ñëwagul. waaw dañuy soog a commencé. Ah, dinañ sant yàlla bu baax. waaw ndax saa yu fi ñëwee rek dinañ sant bu baax waaw xam naa dina dox. ndax am nañ benn jafe-jafe par rapport ak yëkkati beeg daal bi dem fee. ah déedéet amuñu ko de. waaw xanaa problème yi sangu rek ci kër yeeg yooyu ndox mi daal demewut noonu moom waaw waaw. Eh, place dañ leen ko jaay wala wala dañ leen ko jox. place dañ ñu koo jox nag fii dañ ñu koo baaxee rek waaw ku baax lañ ci fekk daal mu jox ñu ko waaw. borom kër gi waaw. mboolem jafe-jafe am nañ benn jafe-jafe. déedéet amuñu ko de. mu lay wax sa client yi ak ñëpp nga ñëw lan nga leen di wax. ma leen di wax ah. xanaa ñu ñëw jënd rek ma wàññi leen ñu jënd rek ñu tase fi ay déwén <laughs>